sayyidina wa mawlaana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahaabatihi al ghurri al mayamin wa ala xayri xadimihi dil habli al matin wa ala man iqtafa athaaruhum ila yawmi ddin bokk julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi nu santee sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal a Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan Sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaqa sun moom dolli ko fee yàggal dolli ko ak wér ba lim yéene liggéey Sëriñ Tuubaa lépp ci dëkk bi ak yoon wi ak ji moom defal ko kàttan ndimbali tawféex ba mu àgg lépp ci sagoom te lépp it noo ànd ko ak moom dellusiwaat nañu fii seen rajo seen télévision Lamp Fall ci seen émission Fardul Hayni di ci leeral faratay jëmm yi comme ni émission bi tudd tey jii di altine di ñaar fukkeelu fan ak ñett ci chahru ramadan al mubarak 1441 hijiriya noo ngi woon ak yéen ci addimaaw tabiiya lil nisa mooy deret yi nga xam ne jigéen baaxoon na ko gis ñu tolloon ci di leeral li màndargaal ak jeexam ak na ko julli di ware su fekkente ne deretam dafa jeex bëccëg nga xam ne bi muy dog li dox diggam ak jant sox man na fa sangu julli fa benn rakka kepp kon takkusaan dong nga koy war war naa sangu fay takkusaan su fekkee mën naa sangu julli fi lu man ñetti rakka nag jàpp ñeent kon tisbaar takkusaan ñaar yëpp koy war waaye su fekkee ne mënu fee jàpp julli fi mënu fee sangu julli fi benn rakka nga xam ne bu doon sangu day sangu rek waxtu yu jeex du fi mën a julli benn rakka kon tak tisbaar takkusaan yëpp wàcc na ko su dee timis ak gay itam su fekkee bi muy bi muy set li tee jant fenk li li tee fajar fenk mën na fee sangu julli fi benn rakka képp fajar fenk kon gee rek koy war timis wàcc na ko fekke mën naa sangu julli fi ñett rakka jàpp ñent nag kon timis ak gee ñaar yëpp koy war su fekkee bi muy set fekk li tee jant fenk mën na fee sangu julli fi benn rakka képp suba dal di koy war fekkee rakka xaju fi nag bu doon sangu day sangu rek waxtu jeex kon suba da koy wàcc yooyu mat naa xam kon su fekkee dafa set bi muy set maaseeg maaseeg fajar di jot ma man a maaseeg fi ñuy fi ñu naa jàpp jot na mu set mën naa yéene woor bis booba bisoo da koy woor waaye saa boo xamee ne gis na baax it waxtu ñu koy gis fekk daa julli wutoon tisbaar tàkkusaan dem ba bi muy gis baax li des ci waxtu wi eh, benn rakkaa fi xaj kon tisbaar a koy war tàkkusaan da koy wàcc muy safaanu bam setee fekkee ñett rakka wala ñett xaj na fi nag bu bu bu bu setee ñaar yëpp daleen leen di fay timis ak gee noonu la ci demee ci fenkook fajar noonu la demee ci suba itam ci fenku jant mbaa ak ñàkk fenkam ci bu ko gisee mbaa bu dogee su ko defee nag ba mu ba nga xam ne deretam dog na fekk fajar ma jàpp jot na mu mu woor yax gaa sangu yàqul ca yàqul ca kii ba dara yàqul ca koor dara mën naa bàyyi bu ba saa bu mënee sangu rek sangu kon yax gaa sangu yàqul ca ca kooram googa dara li doon junj nag ci lu aju ci ki yor damul istixaada maanaam ki nga xam dafa amee jorngel ñetti xaalaat moo ci am ba ñu nekk mooy su fekkee xamoon na ci boppam mbërëg mu ñu xam laataa muy jorngel xamoon na ne mbërëgam daal saa bu ko gisee diir sàngam lay doon kon léegi loolu lay jàpp mbër ga mooy saabu bu fekk xam ci misaal miin na ne daal moom saa bu weer teroo ba am juróomi fan dana gis baax su amee juróomi fan mu dog léegi jorngeel na dafa tax ak deret kon saabu weer teroo ba mu juróomi fan na jàpp ne léegi mu ngi ci baax mu bàyyi waru julli toog juróomi fan jàpp seet na mu mu mu sangu kon day wéy ci lam xaman ci boppam bu njëkk loolu lay wéyal Eh, ni ma koy waxee ci ba tey bu fekkee ne bis bu set maanaam weer wu nekk juróom benn fan la cay mbërëk ci njëlbeenu weer wi ci weer wu nekk faram jorngel ganesi ko maam jorngel kon léegi la loolu lay jàpp ne mooy saa bu weer teeru njëlbeen weer na am na jàpp juróom benn fan jàpp ne muy mbërëgam su matee mu sangu te jàpp ne léegi li ci sa jorngel la muy sangu tey woor tey jaxasoo borom këram loolu nag xadis yu bare bare root na ci yu koy saxal am na bu soxna Aysa nettali ne Fatima bintu abi abi Xubays xaal yaa rasulallah inni astahaadu fala fala atur afa adau salaata xaal laa inna zalika iraq inna zalika araq walakin dan yi xadral ayaami la ci kunta tahidina fiiha suma tasli wa salli Faatim bintu Abi Xubays dafa wax yoon saas ne ko yow mi yàlla yoon man kat du ma seet mukk damaa taxoog dara ndax damay bàyyi julli mu ne ko déedéet loolu wére di la da ngay bàyyi julli kem bis yaa ngi ko daan jis rek bis yaa ngi ko daan gis nga bàyyi ci julli sàmmateen na nga sangu te tàmbalee julli loolu kon day wéral ni kon euh, euh, wéral kon àtte bi mu wax léegi noonu ci gannaaw Buxaari yi solo na xadis boobu waaye ci saxiix muslim dafa wax ne moom xaal li ummi Habiba bintu bintu Jahsh im ku si qadra ma kaanat taxbisuka xaydatuka sumaxtasi wa salli mu dee umu umu Habib moom yun saas na ko wax ne ko bintu abi Jahsh ko wax ne ko na nga nanga nga sax bis ya nga daan gis baax nga jàppe ko baax saa bu jàllee nag nga sangu te jul te xam ne la ca des dootu baax dootu baax waaye wéradi la ñaareelu xaala bi mooy muy koo xam ne xamutoon amutoon mbërëg moom xam ci boppam maanaam amutoon benn baax bu mu xam ci boppam nga xam ne maanaam dafa tàmbalee gis baax rek mu ne moom sax ci moom rek dàkk mës sa gis deret waaye bi mu tàmbalee gis deret deret ji daa continuer dogut kooku mooy def tam li ñu tuddee tamyiz tamyiz mooy ràññale ba xam deret ji daa ñuul wala dafa xonq deret ji dafa dafa dafa tal wala dafa woyof eh, ak ak yu demee noonu daal nga xam ne ah, ràññeel na ko daal wala dafa xesaw wala da da wala amul xet su fekkeen ko ne gis na fukki am na fukki fan yoo xam ne deret ji daa ñuul am na fukki fan deret ji ñuul la des seweer deret ji xonq kon la jàpp diggante ba deret ji ñuul kon mooy mooy baaxam lam xonq jor la du ko te na ca sangu julli ca war fukki fan yem ñuul nag moom moom lay jàpp ne mooy baax su ko dee mu bàyyi mu mu mu mu dakkal ci jullee ma ko waram wala da ko gis fukki fan mu nekk deret ju far dal di sewar nekk deret ju woyof kon jàpp ne diggante ba mu tal mooy baax diggante ba mu woyof jor la wala dafa am fukki fan yoo xam ne dafa xasaw xunn la des ca weer wam um, amutul xet na jàpp na kon weer um xam ne ci la xasaw kon mooy mooy mooy mooy baaxam yam amul xet jorngel la loolu ñu tuddee loolu ñu tuddee tamyiz kon na jàpp na bàyyi julleem eh, te tey tey jàppal julli gu nekk nag bis an jorngel la daga na waay julli gu nekk nag na na ko jàppal te daal di julli Abu Daawud moo solo moo ko solo an Nasaa'i ak Nasaa'i ibnu xabbaan yi wéral na ko ak xaakim ñetteelu xaala bi mooy ba tey mooy koo xam ne xamul ci boppam benn mbërëg mu mu leer mu jàpp amul yi benn tamyiis bu bu bu bu wér maanaam deret ji moom benn mel rek la mooy mooy tusu day xonq faw mbaa day ñuul faw mbaa day teeng faw mbaa day woyo faw mbaa day xeeñ faw mbaa du am xeet faw nga xam daal amu ci benn tamyiz bu mu ci mën benn tamyiz saalix amu ko ci kooku day jëfandikoo aada mooy day xool li ëpp ci jigéen ne lay doon seen baax mu jàppee loola baaxam moo xam juróom benn fan la wala juróom ñaari fan mu jàppee loola baaxam ci weer wu nekk njëlbeen weer wu nekk laajal sax mu jàppee ko mu jàppee ko jorngel di ca julli di ca woor gannaaw bu sangoo kon noonu lay noon noon noon noonu lay noonu la mbiram di demee kon kon loolu mooy lu aju ci lu aju ci istixaada muy jar nga su laajee des daa ci desiwaat ci dolli leeral mu des na li ñu tuddee nifaas nifaas wolof gësin la koy waxe gësin muy meret ci tubaab mooy deret joo xam ne mi ngi soosoo ci ak am doom moo xam dafa ànd ak doom ja moo xam dafa génn gannaaw doom ja li ëpp ci biiram mën naa man ngeen jaa néewu mën naa yem ci bis ba sax mën na ko mën naa dog ci bis ba su dogee ci bis ba mu am doom yi day sangu te tàmbali jullee ko war waaye ngeen jaa bareen nag borom xam dañ cee wute bu dee mazhabu abu xanifa man nga ne masahib yëpp rek lu dul mazhabu malik ak mazhabu shafan yëpp ñeent fukki fan ci lañ ci ñu dëgg bu dee mazhabu malik ak shafan yi nag ñoom dañoo wax ñoom dañoo wax juróom benn fukki fan waaye meneen mazhab ci mazahib yi des yëpp ñoom ñeent fukki fan la ñu wax waaye nag gannaaw ñun ci mazhab malik la ñu sukkandiku kon juróom benn fukki fan ci lañu ci la waaye shafan yi ba tey ci loolu mooy juróom benn fukki fan mooy ngi daa bari nga ne su ko matee te dogoon na xam léegi wéradi la waaye dootu dootu dootu gasin dootu nifaas waaye su dogee lu jiitu juróom-benn fukki fan yi nag day sangu te julli te woor ànd ak borom këram su dogee te dellusiwaat te seen diggante mutul fukki fan juróom na jàpp ne ba tey daa jeexagutoon daa doggam talu rek kon bis yam ko gisul na sangu te julli te woor bis yam ko gisaatee mu waat mu aritiwaat jullee ma ko waram waaye su fekkee fi mu dogee boobu mu gisaatee baax mat na nag fukki fan juróom yu ma sëkk kon li mu gisaat kon baax la bu bees buy tàmbalee loolu lépp kon bokk ci nga xam ne eh, eh, ci bëgg xam war na ko war na ko ràññee bu baax a baax a baax a baax ndax ni kon lépp ci diineem rek da ko da ko war a xereñe ndax lislaam nanguwut jëf ci làmbatu mu am nag yoo xam ne ki gis baax dañ ko koy tere waru koo def li fekk seetagut ba ci njëkk mooy julli ki gis baax walla gasin du julli julli waru ko su jullee it du wér julli sax day xaraam ci moom te su jullee julli ko du wér waaye nag du ko fay julli ko du ko fay ba ko ñaari ci ñu ko tere mooy woor ki gis baax sëñu ta woor day xaraam ci moom su wooree it koor ga du wér li fekk ma ngi ànd ak mbaax baax ba waaye su seetee nag da koy fay muy koor ga ba ko ñetteel ci yin tere jigéen ji gis baax mooy tàbbi ci jàkka ak sax fa dugg ci jàkka tere nañ ko sax fa muy def lu mel ni lu mel ni intikaaf intikaaf mooy sax ci jàkk di fa jaamu yàlla loolu jigéen ji gis baax dañu ko koy tere sañu ko su duggee ci jàkka te ëmb ca ngànt am na bàkkaar ba ko ñeenteel ci ñu ko tere mooy tawaaf mooy wër kaaba ga moo xam day tawaafu farata niki euh, tawafal ifaada tawafal ifaada farata la day tawaafu warugar lu mel tawaaful tawaaful xudóom wala day tawaafu sunna lu mel ni tawaaful wadaa wala day tawaafu siyaara lu mel ni yenn tawaaf yi des yëpp du ci sañ benn kiy xaj nag wala muy omra yee ca des yëpp mën na ko def mën naa xarmal mën naa dem arafa mën naa taxaw fa mën naa fanaan musdalifa mën naa sànni jamra mën naa defee ba des tawaaf képp mën naa dox safa marwa tawaaf képp lañ ko tere moom day bàyyi ba set ba sangu doo dem tawaaf loolu xadis yu bare bari rot na ci yu koy tegtale soxna xadija eh, soxna Aïcha la bëgg wax yàlla maa ngi jégal soxna Aïcha masaa ànd ak yéen saa san dem umra yàlla dogal lool gaar ko ñu ngi ko laajee yenn ne ko da ngay ndég ba set nga door tawaaf ne ko mën ngaa def yi xaj xajkat yi def yëpp ba mu des tawaaf so tawaaf na nga bàyyi ba set ba sangu door ko def ba ca toppaat di juróomeel bi ci ntere ku baax mooy laal alxuraan wala laal ab kaamil su dee kuy jàng ak kuy jàngale donc nga biy jàng may nañ ko lu dul kaamil bu mat may nañ ko jukki ba muy yor di ko jànge sañ na ko sañ na ko téye ndax la muy jàng sëñ daara bi koy jàngal di jigéen it su gisee baax sañ naa téyel kii tari nga bu jukki bi waaye leen leen mayut mooy kaamil bu mat kon may nañ leen jukki muy xaaj waaye kaamil bu mat sañ ko laal su dee ki jàngu jàngaliwul nag moom benn kayitu alxuraan képp teer nañ ko ma lal na ci moom su defee bàkkaar la keneen la muy jàng ak la muy la muy jàngale moo tax ñu may ko loola defal ko ci yàlla waaye mayuñu ko kay ma sëkk waaye ab xaaj rek lañ ko may mu laal ko bokk juróom-benneel ci yi nga xam ne sëñee su ko mooy fase ku ne ci baax ku ne ci baax boroom kër amul droit fase ko li fekk seetut la moo tax li su moo ne fa talliquhunna li iddatihinna lu dul na daa ëmb su ëmbee moom mën nga ko fase waxtu wala neex moo xam daane ci baax moo xam ko ci baax li ko war a mooy ki ëmb moom xiddaam aju ci ay baaxam ak setam xiddaam ci ak imbeem la aju mooy saa bu amee doom rek mooy mooy mooy waaye ki nga xam ne ci der ci ay deret lay nat xiddaam kooku sañee su ko fase ci biir baax ki fase soxna fekk ko ci baax dañ koy forcé ci mu fay li ko far force su dikkee mu bàyyi ba mu set ba jasaat baax ba setaat mu dal ko sañ a su ko neexee far continuer continuer téye téye soxnaam ndax subaa day dàqonteeg fekkee da ko fas ci idda rek ci ci ci baax day daal dàqonteeg fatalixoo ne li te hina jooju alxuraan wax waaye bu dee ko ëmb nag moom ni ma ko waxee léegi wala boog muy koo xam ne day day day day pasem day pasem ya mooy ki nga xam ne dalaa jox dara ñaan la baat dalaa jox dara ñaan la baat ki lay ñaan baat jox la dara su la jox soo nangoo rek mooy mooy jëru ngay waxee dara mooy te sëy ba tas na bu dee booba mooma itam sattuñ ca mu nekk ci set ndax la ko waral mooy dañoo mel ñaari xàq dafa daje te xàq jéem a gën mooy ki am na lu ko metti ba bëgg naa génn ci sëy ba kon sàmmonteek xàqam ci bàyyi ko mu génn mu gën a yey di ko fa téye di di xaar ak set dañ ca sàtt muy koo xam ne borom ko ne jaxasoon ak moom xanaa gërëm borom ko jot waaye ki ki la leen gisee maanaam jotee ko jaxasoo moom nga fase ko kooku itam duñ ca sàtt mu nekk ci set mu nekk ci baax kon dal jigéen ji ji jiñ xaraamal nga fase ko ci baax mooy day fekk ëmbut ñaar du baseem raja yi raja ya ñetteel ba itam nekk doon na mu doon ko ko ko ko ko jaxasol wax ne jot jot ngaa joteeg moom fekkee koo joteegut koo joteegut ak moom la mën nga koo ci waxtu wala neexee su fekkee ku la mën koo ci waxtu neexee su dee ki nga xam ne fasum raja yi fasum raja yi la itam mooy tun du ca du mën nga koo ci waxtu wala neexee kon yooyu itam nekk ci yi nga xam ne yu mat a bàyyi xel te mat xam itam ni kon ba ca topp ci yiñ la tare mooy jaxasoo moom jigéen ju gis baax day xaram boroom këram sëy ak moom sëñ naa bànneexu ci moom nag façon bànneex bu ko neex nu ko neex foo nag raay ak lu ko sob mën na ko def ba mu des sëy rek sëy lañ ko tere sëy lu dul sëy nag dagan na ci moom ci yaram yépp moom des nag li dale ci jumba xam jëm suuf foo lañ ko tey waaye feneen ci yaram wi nag man da na caa bànneexu su ko soobee mën na bànneexu ci moom ba jot boppam ci xan xeetu anam bu ko neex ba am des rek jaxasoo ak moom ba keroon na muy sangu ba ba ba ba mu sa mu set ba sangu mu door sañ jaxasoo ak moom ñu fàttali ni itam bi ñu ko teree laal alxuraan sañ naa tari moom sañ naa tari bu dee ki mokkal sañ naa tari alxuraan waaye laal ga lañ koy tere fa ñu koy tere tere mooy seet na te sangoogut bu seetee te sangoogut moom foofu dañ ko tere moom tareeg lépp xam nga loolu dafa da da lu sew la fi ne loo xam ne boo ko seetlu mën nga mën ko ko jaawale li fekk seetagut mu ngi ci baax sañ naa tari waaye sañu ta laal nag alxuraan ja saa bu setee mooy deret joo te sangoogut foofu dañ ko tere sax tari na nekk ba sangu door sañ tari sañ a itam ñu fàttewaat itam ba tey ne su fekkee deret dafa da ko da dab mooy mbax da koo dab ak diggam ak julli atab julli su fekkee mbarik da koo dab te diggam mag jeexu waxtu wa mën na fee sangu julli fi rakka bu mat waaye mu fee sangu julli fi rakka bu mag julli kooku wàcce ko waaye su fekkee rakka bu mat xaj na fa nag julli ko war ko jigéeni ñi su gisee baax lu jiitu jant di so lu tolloog benn rak lu toll juróomi rakka Eh, tisbaar ak takkusaan lépp wàcc ko su fekkee julli wala ñoom ñaar su gisee baax lu jitu soog jant eh, lu jiitu soog jant di so luy tolloog benn rakka rek wala ñeent rakka kon takkusaan wàcc ko tisbaar rek ko koy war waaye gannaaw bu laa benn la koy fay su gisee baax lu jiitu fajar lu tolloog benn rakka jàpp ñetti rakka kon gee wàcc ko timis koy war da koy fay gannaaw bu laabee su gisee baax lu jiitu fenkuk jant lu ak benn rakka rek julli suba daldi rot ci moom wàcc ko fekk julliwu ko su fekkee doguk deret la ak atteb julli su fekkee deretam bi muy dog ci ndaw si waxtu daroori wi benn rakka doo nga fi xaj bu ànd ak ñaari sujjóotam ci julli gi gannaaw bu ñu nattalee laab ga muy sangu ga julli googa da koy war su fekkee der tam dafa arrêté itam ci jigéen lu jiitu saw jant loo xam ne laab xaj na fa ak juróomi rakka tisbaar takkusaan ñaar yépp war ko su fekkee der tam dafa arrêté ci jigéen njëkk soow njëkk sow jant loo xam ne benn rakka doo nga fa xaaj jàpp ñeenti rakka kon takkusaan dong moo koy war tisbaar wàcc ko su dee ja hérité nag ci moom lu jiitu fajar lu tollook euh, ñeenti rakka timis ak gee ñaar yëpp war ko su dee itam doge itam lu jiitu fajar lu to loo xam ne dafay benn rakka ba ci euh, gannaaw bu laabee rakka ba ci ñetti rakka kon gee dong moo koy war ba su fekkee der itam dafa dog lu jiitu fenkuk jant loo xam ne benn rakkaa doo nga fa xaj suba it war ko dogu detti mbërëg ak atteb koor na nga xam ne set ci dereti mbërëg ak set ci dereti e, gësin sàrt la boobu war ak boobu wér ci julli sartu sixati salaati wa wujjoo salaati ci am baax li fekk seetagut julli waru ko su julee julli gën wér kon sart la sartu jub wa sixa la li saw mi maanaam ba mu seetagut koor waragu ko soo waree koor ga du wér kon sart la buy tax julli ko sart eh, buy tax woor war ko sart buy taxit woor koor ga wér kon du war ci moom ci ki mbërëg ak ki ci nekk ci gësin te boole koor ga du wér saa laabee nag ak laabam tolloog fenkuk fajar muy waxtu yu ñuy jàpp koor bis boobu da ko daldi war laab ga nag mën naa mën na koo xëye mën naa doon euh, bàyyi ba mën a sangu rek sangu te du yàq dara ca ga su fekkee dafa sikki sàkk nag dafa sikki sàkka laab gi ak fajar gi lu ci jiitu ndax maa laab fajar jot wala fajar daa jot daa ma door laab soo amee yéene koor rek ndax jamtalu ci ne man naa am laaboon na li jiitu fajar ndax yéeneem eh, eh, day nekk yéene ju dogul su fekkente ne wóor wóoru ko waaye nag kafaar du ko ca war ndax dafa nekk mu ta'wil la moo tax da ko ta'wil leer ñu cax ne ana kañ la boroom kër di sañ a jaxasoog soxnaam ci bëccëgu weeru koor te kenn du ci am bàkkaar dañ ko cax mooy su fekkee ne soxna si dafa yoroon baax ba ba set mu doora mu doora set kon bëccëg bi lépp sañ du ko wor te santeeg boroom këram tukki woon xam nga kii tukki sañ naa dog ñibbisi yibbisi nga xam ne wóorutoon waa sañ naa jaxasoo ci bëccëg bi kenn kenn ñoom ñaar du ci am bakkaar kon foofu la foofu lay dagane mooy ñoom ñaar kenn ku nekk am na sañ-sañu dog moo tax ñu am sañ-sañu jaxasoo ci bëccëg bi lu sew loo xam ne euh, ndikki bu ñu ko leeralul leeral bu leer nañ ñi wala jàngu ko subaa du ko du ko mën a xam te deret moom li ci aju dafa bari dafa am lu bari lu ci aju moo tax mu mat di leeral su ko defee kon foofu lañuy taxaw tey daal di indi nag seen ñaanu bis bi tey ñaan bis bi tamit allahumma inni as'aluka alhuda allahumma inni as'aluka alhuda wa tuqa wal afaafa wal ghina ma yesu ma yaa maa ngi lay ñaan nga may ma ak njub te may ma ak ragal yàlla may ma ak fegu ci lépp lu dul noona te ma am koom bokk ci ñaani yonent bi alayhi wa bi yonent bi wax na ne inni la aqumu fi solati uridu an utawila fiha fa asma bukaa asabiyi fa atajawaza fi solati karahiyata an ashuqa ala ummihi xataada ci lañ ko jëlee waaye Buxaari yu moo ko solo dafa wax ne man dey dinaa taxawal ak julli bëgg a yàggal julli ga bu ko dee julli gu yàgg waaye bu ma déggee gone gu jooy damay daal di gàtt julli gaawal ko ngir bañ a sonal yaayam kon nga dégg kon kon imaam su fekkee day jiite dégg gone guy jooy rek war na war na gàttal julli ga ngir ne man gone bu jooy rek yaayam day daal nekk ci fitna su ko defee kon nee daana ko daana ko def gàtt nar a guddal déggoon na ko jéem gàttal julli gi ngir rek bañ a yaayam kon ñu dox leen dig day incha allah suba ci waxtu yi taxaw foofu di ñaan li gën ci noonu yàlla nga ko suñu bon defal dëppal li nu gënal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.